mbokk yi ginnaaw bañ santee borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñu baal xaq ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen jéggal dellu siwaat suñu duruusu taiyat suluk ila malikil muluk mu téere buy jàngale ci wàllu tasawuf ak principe bu tasawuf ñu ngi yemoon ci suñu dars bu mujj bi bayit boobu mu naan wa yarfau tawqiran kabiran li sinnihi كذا فاضلا عنه ولو ابن ولو ابن ليلة ففلن يمن تهيجل ويرفع أبناء الطريق ويتصف بأوصافهم يسمو بنفس زكية من يمم تلببي مكمي خمني لفنكتيون يلا ويرفع أبناء الطريق نفي نيكتي نيخمنتني نيوي دوم يون دوميا بمويلا الواصلين المتصفين بمكارم الاخلاق مو نيغا خامن نيو جوك تي يال تي يونو يالا نيو نيو خامن نيو آه، ملال لا نيغا خاني موي جيكو يو جيكو يي غنا تيدي نلين يكتي مانام نلين ماغال ويتصف باوصافهم ببري موم تي بوبام نا ملوكان اك ملوك سيني ملوكان مانام نجيما مل نيوم bu defee loolu de yes mu dana kawe bi nafsin zakiyatin ci lan ci bakken boo xam ne bakken bu sell la bakken bu sell bi nag liñ ci namm mooy dana am ñi tuddee uh, alxurriyatu ani nafsi maanaam am koo xam ne bakken bu bu ñu goreel la lay am loolu lanam ci loolu moo tax am na benn sëriñ bu naan wax Seyd Ibrahima Dasuqi Dusuqi ñu naan Dasuqi an Dusuqi doon wax ne ñi nga xamante ne ñooy ñi nekk ci yoonu yàlla mooy alfuqara mu naan mën naa ñoom kalmuluk dañoo mel ni ay buur moo tax mu naan mu daan wax naan fa man lam yaarif adabul muluk la la yambagi lahu mujalasatuhum li annahu rubbama jarrahu adamu adamu ixtiraamihim ila al mu ne ñi nga xam ni dañoo nekk ci yoonu yàlla ba yegg ci yàlla mu ne ñooy buur yi fuqaraa googu ay alaarifuuna billah ñu mel ni ay buur ñoom kon mu ne képp koo xam ne day toog ak ñoom yàllul ci moom muy toog ak ñoom tengata jàngul li nga xam ne mooy ni ñuy toogeeg buur ya ci buur ya ci ay jamono bokkul ak léegi nag bu dul loolu rek loolu ñàkk suwal adab mën na koo yóbbee maanaam mu def ñàkk teggin yoo xam ne yëgu ko sax ba mu yóbbee ko mu yàqule loolu am na benn borom benn waykat bu ñu doon wax abu madianul xaws doon na ko wax naan mal ma laddatu al aysh illa soxbatu alfuqara hum alsalaatinu walsaadaatu wal umara fasxabhum wa taadda fi majalisihim wa xalli xadaka mahma qaddamuka wara defe naa noonu la ko indee woon ci ñaari baytam yooyu mu ne li nga xam ni mooy dund bànneexu dund nit mënu koo am lu dul ci ànd ak aarifuna billahi parce que liy dund ci dëgg dëgg dëgg xaqiqatan mooy ruux ruux bu dundul ci nit daanaka kooku dundul li muy lekk-lekk ñam yi lu mu neex neex neex privilège yi lu mu bari bari bari bari bari day toll foo xam ni loolu dootu ko saf dara kon bànneexu dëgg dëgg dëgg bànneexu dund degg mooy ruux te li koy may nit ki mooy ànd ak xaarifuna billahi mu ne ndax ñoom ñooy buur yi ñooy sang yi ñooy umara yi ñooy amir kon nag na ngay ànd ak ñoom waaye booy ànd ñoom nag na nga ànd ak teggin ci lan ci na ngay toogee ak ñoom waaye tamit na nga wàcc mbooleem cër saay buñ la jiitalee buñ la jiitalee ci mbir bul ci ut benn cër waaw na nga dem rek ci ndigalu euh, ki nga mooy aarif bil nga xam ne moom moo xam ci wàllu yàlla loo xam ne xamuloo ko yegg foo yeggul demal nga def lem la sant rek te bu ci wot benn cër bu wut benn garaat ci kanamam it nag mhm. loolu moo tax Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi avant muy faatu bi ko Seydi Ali Tamasini ñëwee ziyaar si ànd ak mbooloo mu baari mu ne ko euh, fekk boobu li ko desee mu dog bareetul xam na ma ne gaawal nga génne faas gaaw ba ma dog nga doog a ñëwaat soo fi toogee ba ma génn àdduna fi se li nga doon wu yëpp danga ko da ko ñàkk ci la ali sama si ni génn faas ci lu gaaw dem ci biti ca baadiyee ba ñu tàggoo ci Raam Tijaani mu doog a ñibbisiwaat loolu ñëw ne ci téere kon fa taadimuhum ajrun wa taxqiiru nafsihi wa insaafuhum minha jadirun bi jannatin mu ne kon nag màggal leen taadimuhum ak màggal leen màggal aarifuuna billah yooyu ajurun ak yool a ngi ci de waaye tamit waa taxqiiru nafsihi ak xeeb boppam nit ki taalibe bi wut yàlla nay màggal nitu yàlla waxuñ sëriñ de sëriñ ak nitu yàlla bokkul li tuddee sëriñ ak nitu yàlla léegi nag sëriñ moo bari waaye nitu yàlla bari na ñu ñuy jàppee nitu yàlla fekk sëriñ la bari na koo xam ne duñ ko jàppee dara fekk kooku nitu yàlla la loolu moo tax noonu it la amee li ñuy tuddee kilifa diine ak kilifa aada kilifa diine mooy kuy jàngale diine képp ku taxaw diine taxawu daara yi taxawu jumaa yi taxaw zawaya yi taxawu euh, diine ji waaw même bu jàngalewul sax nekk ci mission yi di dox di wax di di réaliser investissement kooku kilifa diine la ki nga xam ne nag turu baayam moo fi bàyyi wala turu maamam mu toog deful loola kooku kilifa aada la moog ñi ñëpp ñi nga xam ñoom kilifa aada yi benn lañ parce que aada moo ko teg foofu du du du moo ko teg foofu moo tax loolu lu mat a ràññee la kon nag màggal leen waaye tamit xeeb sa bopp wa insaafuhum minha bi jannati leen waaye xeeb sa bopp yow ci sa bopp na nga na sa bopp nga di leen sellal yow tamit dee leen sellal maanaam teg leen ci place bu mag bu kawe ñoom ñi nga xamante ne ñooy aarifuuna billahi bu ko defee kooku jadirun dafay ah, yit dafay yello dafay yayo ah, min ha eh, bi jannatin ci aljanna min ha ci aljanna jooju dafa yayo ay wàccuwaay yu rëy nañ ko yàlla defal moo tax ba tey Ibrahima danu dasuki doon na wax naan ki nga xam ne mooy eh, faqiir bi euh, ki nga xamante ni mooy faqiir bi ki ñuy tuddee faqiir boobu ki bëgg a yegg ci yàlla bii nag ki bëgg a yegg ci yàlla kooku nee na du ko mën a nekk du dul dafay doon koo xam ne kuy gàddu ay lor la ci mboolem bindéef yi di gàddu ay lor ikraman liman hum abidahu subhanahu wa taala di ko gàddu ngir lan ngir jàppe nga teraanga goo xam ne yàlla moo ko defal barular kenn wala yu'di min man yu'dihi du lor ku koy lor du saaga ku ko saaga du mere ku koy jaw du du dégg nga du xeex ak ki koy xarab wala ki koy wax ju bon du ko jëppiit waaye tamit wala yataxaddat fi ma la yaanihi du wax loo xam ni xamu ca dara wala yoonam nekk ci loolu moo ñu sonal ñu bari nag mooy jaamu yàlla ba noppi nekk ci jaamu yàlla toujours ngay dugg loo xam ne sa yoon nekku ca wala di wax loo xam ne amoo ci xam-xam wala xamoo ca dara wala saay boo doo toogee yaa ngi ci deru nit bari na ci mbokku taalibe yi lool ñoo xam ne fu ñu toog ñu ngi ci deru nit ànd ñu gis ñaar ñoo xam ne dañuy ànd kenn ku ci ne bu teggali ko moroomam wax ca moom lu ban bu ñu dajee ci place yi diine yi nag gàmmu yeeg conférence yi ku ne conférence ci sa morom wala mu gàmm ci moromam te fekk war ka ci xol ya bokkul loolu dundum nifaq la yal nañ ci yàlla saaxa bi bari na ci lool nag kon nag walay chamitu bi musibatin bu muy ndokkeel tamit nit ci maanaam ndokk ci lu lu lu ko dal koo xam ni opposant am la rek am lu métti lu ko dal mu naan ca ndokk bu mu ko def wala yadkuru ahadan tamit bi xaybatin bu mu tuddi kenn ci gannaam di ku jëw waaye day doon koo xamante ni it ku sàmm la ci xaram yi waaye tamit day taxaw ci lépp loo xamante ni sib la da koy maytu boo defee bu ko yàlla tegee natt day muñ tamit bu yàlla dogalee ci moom ak ndogal mu dogal yi tamit waaye mu doon koo xamante ni ku gëmm ay bëtam la ci bon yi waaye ba noppi di dundal suuf si di dundal suuf si ci lan ci yaramam bi jasad di waaye dundal asamaan ci lan ci xolam kooko mooy ki nga xam ni mooy ki war a yegg ci yàlla gis nga yii yëpp da koy làmboo dafay doon koo xamante ni du lor kenn wax loo xam ne xamu ko du ndok nit muy ñett lu métti lu dal nit du tudd du jëw day doon koo xam ne ku sàmm ci xaraam yi moytu lépp loo xam ne lu lu lant la wa baynahuma umuru mutashabihat mushtabihatun ko yonent bi waxee woon ci xadis bu ko yàlla tegee natt mu muñ ko bu yàlla dogalee mu nangu dogal ga ba pare doon koo xam ne ku gëmm ay bëtam la ci xaraam yi ba noppi di dundal suuf ci yaram dundal suuf ci yaramam mooy lan mooy di liggéey mooy kon ku jaal yi yëg leen ni nañu yëg ni ñu bëgg yëg ci yàlla foog ñu liggéey liggéey boobu moo ñu may lan lu ñuy may moo ñu mën a dund dund lu lew liggéey boobu lu may moo ñu mën a may ñu doylu liggéey boobu lu ñu may moo ñu mën a may duñu duñu wër di ñaanaatu wala di wayaan yooyu day day xaw yi suturay gor day tax nit ki du am liberté du am liberté ci boppam du am liberté ci dara waa kay loolu nag du mat a bàyyi xel la moo tax ñu naan ki nga xam ne moom moo lay wommat ci yoon yàlla bu fekkee ne moom ci boppam li muy am ci nit ñi la ko sukkandiku booy boo seeti leneen parce que moom bu fekkee ne ci nit ñi la sukkandiku yaakaaragul yàlla dëgg wóoluwul yàlla dëgg ngay womat ci yoom yàlla di liggéey fay doon kuy liggéey liggéey nag bëri na façon jàngale ngi ci liggéey commerce ngi ci bëri na ay façon dégg waaye dafa war a doon ko ku liggéey nga xam ni kii mu ngi dundee ñaqam nit ku ñëw jox ko dara nag yàqu ca dara ndax moom xaarul woon loola mu ngoog am na ci lu mu sukkandiku bu ko defee du ragal lu yàlla du yaakaar ko dul yàlla du dépendre ci nit kooka day mën a dox dox bu gaaw dem ci yàlla parce que xol bi dafay laab ci lépp loo xam ni luy nduroo xëccoo nit la xew na xëccoo nit gis koo xamante ni kii day yaakaar diw kële yaakaar diw mu am das dërëm kenn ku ci nekk di buux sa morom pour gën a placé wu yooyu nag ñàkk occupation moo ko waral ak ñàkk liggéey waaw nit bu dee daw di njëkkante nit yi ba noppi ne day dem ci yàlla ban yoon lay jaar boo ko manta nekk c'est impossible ñu bàyyi ci góorgóorlu ci xel bu baax a baax a baax di fàggu di dunde kay loolu mag ñi loolu lañ leen xame woon bu ko defee muy dundal suuf mooy di liggéey dundal suuf di taxawu réewam dundal suuf taxawu dëkkam dundal suuf taxawu jaamu yàlla ci lan ci wàllu adduna wàllu adduna tax ñuy wax de kon yoon yàlla da ci jëm rek jël sa xol bi rek aj ko asamaan rek dégg nga te it doo dundal suuf da ngay dundal suuf ba noppi ci sa jëmm di dundal asamaan ci sa lan ci sa sa xol ak sa ruux loolu mooy li am solo comme ni mu ko waxee yaamurul arda bi jasadihi wa sama bi qalbihi tariqatul kawni wal badli ko defee yoon la woo xam ne yoonu wann mer la da ngay mer ba noppi di joxe di joxe ba noppi yàlla gënal la sa lépp ba noppi di afu di jéggale sof di baale ba noppi di gàddu yëpp yoo xam ne ay lor la te du la diisal bu ko defee mu ne wa bar wa barruhumu in tastatiahu fa waajibun wa inqaaduhum min kulli dayqin wa shiddatin teg ci ne mu ne wa barruhumu na ngay baaxal jëmale ci ñoom baaxal jëmale ci ñoom ñoom ñi nga xam ni ay nit lañ yu yittewoo dem ci yàlla istataata boo ko manee mooy loo man rek fa waajibun loolu lu war la wa inqaaduhum ak loo man di leen xettali min kulli dayqin ci buñ nekkee ci xat-xat wa shiddatin ak tartar nga nga dem xettali leen soutenir leen jàppale leen ca loola ba ñu génn ci jafe-jafe yooyu loola ca la bokk mooy am solidarité seen biir ida jaaza hada alwasfa ani jamiahu fa bashirhu bilqurbi saniyi li xadrati nee nag taalibe bi bu traverser yi mu doon wax sax moy yi ma tuddu sank ne ku nek ci yoon bi faaw mu làmboo ko traverser ñom ñep ani jamiuhum moy ñom ñep nee na kon fa bashirhu nang ko bégal bil qurbi ci am ak jege yàlla wo xam as-sani kawela li hadratin ya al-hadratu ilahiyya wa tamane wa yaghfaru bid dar allati azza wasfuha wa fiiha al buduuru giidu أسقط وعنت وغنت وكلفة وظفر مم لا يدون كو خمني ويتخلى دار التي تكر جن خمني ما الجنة ما تخمو تأني ثلكو ما خمنتني عز كبينة وصفها ملارك ما يكين منو كو ملار دين كو إيماجينرك باي منو يكو يا خمني كر جن خمني فيها نكنا فعل بدور أي حور العين أي حور العين نيوفا نك yoo xamante al budurul xiidu ay alxuurul ayni ñoo fa nekk yoo xamante ni yu taaru lañ yoo xamante ni asqat dañuy nandale wa xannat ba noppi ñoom ay baat yu neex yoo xam ne bu ñu wayee rek nga yëg ni day mel ni mosuloo dégg way ci àdduna mosuloo dégg way ba nga la yàlla bindee ba keroog nga jàkkaarloog ñoom nee na jaam bi bu jéggee bu jéggee maanaam étape yooyu yàlla dina ko boole ci ñi nga xam ni kii dugg ci barab ci barab boobu ñi nga xam ne wax aljanna yal nañ ko yàlla defal kon day def day doon saada mooy dugg aljanna ba noppi am saada mi nga xam te mooy ru'yatullah gis yàlla subhanahu wa taala bu ko defee yushahidu aqmaran biha wa araisan wa yashrabu min kasi lhana wal masarrati bu defee bu duggee foofu nag ah yushahidu aqmaran mooy gis nag ay biddéew yoo xamante ni biha ca foofa aljanna dégg nga waxaara isan ak ay seet maanaam xurayin yi nga xam ne yàlla daf ko koy jagleel bu ko defee wa yushrabu muy naan min kasil xanaa ci kaasu kaasu ndokkeel wal masarrati ak mbégte maanaam naan ko xanii an maria waaw kon loola bokk na ci ndaxte aljanna moom ku fa dugg rek wala ëppale garaat rek ëppale la ay ay teraanga waaye kenn du fa yëg nag loola manqué nag loolu moom lu wér la ndax ne bu ne bu ne ak xamaaran googu dañ cey déggee mooy juróom-ñaar fukki xurul ayn yi nga xamante ni dinañ ko war ca aljanna loolu ca la amul màgget amul xiif amul sonn amul mer amul nelaw yëpp coono la tax mu ne ko hunaka alkiramu naziluuna min al ula manazila afraadi maahida saadati mu ne hunaka foofa nekk na fa foofu aljanna alkiraamu ay teraanga yoo xam ne na yuy wàcc lañ min al ola jóge ca kaw manazilun ak i afraadin ak i wàccuwaayu ay nit yoo xamante ni yàlla préparé ne leen ko maahida saadatin mooy li nga xam ne moom la diglante woon ak ñi nga xam ne ñooy sang yooyu sang yi mooy nit ñu baax ñi ku fa dugg rek sang ba foofu nag mooy mooy mooy mooy mooy aljanna bu ko defee dañuy taxaw foofu ñu góorgóorlu bu baax ci wàllu suñu yoon wi ñu nekk nga xam ne yoonu tarbiya la di yoonu jaamu yàlla di yoonu yoonu sellal ruux di yoonu xeex ak bakken di yoonu dëddu àdduna dëddu àdduna mooy lan mooy bëgg yàlla lépp lu yàlla bëgg nga bëgg ko bañ lépp lu yàlla bañ nga bañ ko waaw ba nepp noppi sax ci sharia ak di dundal sunna di ko dund ak di ko dundal loolu mooy dëgg àdduna piir ñu nekk ci góorgóorlu ci bu baax tariqa bi nga xam ne yàlla nekk boole na la ci ak bu manti doon muy ndigal loo xam ni borom ca yonent bi la ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam nga sax ci awraad ya sax ca te taq ca di jàng alquran taqoog principe ya loolu mooy sa tarbiya tarbiya ba nga tariqa ba nga nekk jàppal ni loolu mooy sa tarbiya ki nga xamante ni nag jàppul benn tariqa moom tarbiyaam mooy lan jàng alquran ak tënku ci salaatu ala nabi waaye bu bëggee yoonam gën a gaaw ba amee ku ma àndal koo xam ni dana ko jox ndigal lu wer loolu mooy yoon bu gën a gaaw bi pour mu a dem dox dox bu gaaw boo xam ne du ànd ak coono te dana woyof toll yan yàlla boole dimbali dimbali mboolem jullit jaahi nabil mustafa wa ashabi wal qawli hada wa astaghfirullah azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh